bismillahi irrahmani irrahim qaala alimaamu albuxaariyu rahmatullahi alayhi fi saxiixihi imaam buxaari ci saxiixam yal na ko yàlla gërëm wax na ni xaddatanaa ibrahimu bnu muusa ibrahim ibnu muusa nettali nañu nee na axbaranaa isa isa xabaare nañu an thawrin jëlee ci thawr an xaalid ibni maadaan jëlee ci xaalid ibni maadaan an ilmiqdaami jëlee ci àndandoow yonentu sallallahu alayhi wasallam bi ñu wax miqdaam radiallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama jëlee ci mawlaana yonentu yàlla bi alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne maa akala axadun tacaaman qattu xayran min an yakula min camali yadihi maa maa akala <clears throat> maa akala mosta lekk axadun kenn tacaaman aw ñam qattu mukk xayran ñam wu gën min an yakula xayran muy aji min an yakula mu lekk min amali yadihi jëfi loxoom nit daal mosta lekk lu gën jëfi loxoom wa inna nabiyallahi daawud yonentu yàlla daawud alayhi salaam kaana yakulu min amali yadihi fa daa lekk ci liggéeyu loxoom xadis yi ñu ci buxaari niñ ko tàmbalee xanaa bon yonentu sallallahu alayhi wa mi ñuy encouragé bokk ci liggéey waaye mi ngi ñuy wan liggéey yee ca gënit mooy ya nga jonjoo ci sa loxo lu mel ni mbay lu mel ni tëgg lu mel ni wuude daanaka ñi nga xam ne wolof yi dañ leen di kaste ñooñu la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax ne seen liggéey a gën ci liggéey ak lu mel ni moom maanaa doomu daal du toog di xaar nit ñi di ñëw di ko jox kooku dafay mujj nekk yalwaankat waaye jamono dafay toll foo xam ne dañuy fekk ñi nga ñi ñu wax ne ñoo gën a baax ñooy nekk ñi gën a tayal ñooy nekk ñi gën a lazy boobu doxut nag na yàlla yombalal ñu yaarab bi ñoom ni ko yonantu defee rek moo gën buñ ko njattee rek àdduna tukki yàlla xiir ñu ci liggéey te barkeelal ñu suñu liggéey te suñu liggéey ak suñ dal yépp di jaamu ak jokkook yàlla tabaraka wa rabbana atina fi dunya xasanatan fi laaxirati xasanatan wa qina adaaba annaari wa salla allahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim